yi dal ak jàmm ci li gën a fës ci yéenikaay yi ci wàllum tàggat yaram ak 13 TV record yéenikaay la ñu koy tàmbalee ak mondial 2022 Togo Sénégal match de qualification bi 1-1 la daal di mujjee sunu naataango yi ne gaynde yi na ñuy sauvé match nul bi foofee ca Kédé Aliou Cissé ni tàggat gaynde yi ne mënoon nañoo ñàkk match bi euh, coach euh, bi nga xam ne moom mooy coach euh, bu équipe bu Togo bi moom bu dee conférence de presse bi ndax nee na bëggul woon yëkkati ay kàddu yoo xam di réccu moo mujjee ñëw daal ne kii di Aliou Cissé di bu senegal bi dafa manqué humilité ci gaynde yi Bouna Sarr daanaka bu ñu sukkandikoo ci nu yéenekaay yi moom mooy gaynde bi nga xam ne moom moo gën a wane boppam ci biir match bi la tribune sport ne match mil bi kay nul bu laborieux la seen diggante ak Togo un but partout Sadio Mané génn ci ak blessure Aliou di dalal xel yi ne dara lu garaaw dalu ko Habib Diallo moom moo sauvé gaynde yi ci mujjantalu match bi stade yéenekaay yi wax ci match bi ne gaynde yi xaw tuut rek ñu daal di ñàkk ci seen diggante ak Togo foofee ca Lomé Habib Diallo dugal ñaareelu biitam ci sélection mooy ki sauvé gaynde yi Sadio daal di génn waaye dara lu garaaw dalu ko bu ñu sukkandikoo ci entraîneur am Togo di terre boo xam ne gaynde yi ba tey ñu nga fay woy dem ay jafe-jafe gaynde yi kenn xàmmeewu leen démb ak taw bu fort bi nga xam ne amoon na démb ci Lomé Aliou Cissé mi tàggat gaynde yi ne am nañu force de caractère boobu nga xam ne moo tax ba équipe bi ñàkkul enquête yéene kaay wax ci match bi it ne ki nga xam ne moom mooy Habib Diallo moom moo sauvé gaynde yi ca Lomé ba tax Sénégal ak Togo mujjee match nul un but partout le soleil wax ci match biit it ne gaynde kay piège bi leen épervier yi tegal foofee ca Togo moom la ñu mujjee éviter match bu mujj bi diggante Sénégal ak Congo dimanche bi Tribune Sport. ne ñi nga xam ne ñoo di waa CAF autorisé nañu six mille spectateurs foofee ca ñu bàyyi foofu wax ci qualification mondiale deux mille vingt deux yi ci Amérique du Sud stade yéene kaay ne treizième journée bi Uruguay match bu mag a mag lay joué digganteem ak Argentine niki tey jii. ku moy Messi moom am nañu yaakaar ne dina titulaire ci match boobu record yenn kaay waxit ci Uruguay Argentine bu décisif ci qualification bi bu dee ca Europe moom ñu ngi ci neuvième journée yi Italie moom warta ñàkk digganteem ak Suisse stade yéenekaay wax ci choc yi nga xam ne ñoom ñoo nar a gën a fës ci neuvième journée zone Europe bi ci qualification mondiale 2022 yi mu ne choc Italie Suisse ni ki tey ji Angleterre moom mën na valider billet am Espagne Portugal Russie ñoom ñu ngi am ballottage favorable Allemagne ak Croatie ñoom wane nañ seen bopp bu baax a baax ñu jeexalee ko ak wàllu làmb ak yéenekaay bi di sunu làmb Balla Gaye 2 B52 benn fan ci weeru janvier 2022 lay doon revanche bi fii ak 50 jours la ñu koy amal tafaatin moom ngir mën a daan Boy ba tey ci biir yéenekaay bii di sunu làmb nee na cent pour cent xeex la fas yéene def ngir mën a am li mu bëgg mbokki xarit yi lii moo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram ci biir yéenekaay yi ak 13 TV jaajëfal leen bu baax ci teewlu gi di leen ñaanal kenn dalug jàmm